waaw jërëjëf fii non di ko ñaawlu rek di ko ñaawlu rek mu si wax na loo xam ne du dëgg loolu du dëgg loolu dara amu ci te it dëgg loolu xas askan wi la d'ailleurs gis nga sax vidéo yi benn intervention bu ndaw rek bu Yékini doon def génn di calmer manifestants manifestant yi dañ koo xaañ euh, wane ko ne lii population bi ñoo jóg am lu leen naqari ñu koy révolter di kaas seen droit ak seen àq ak seen yelleef mais di ci tudd ay mbër loolu dafa tooñ na mbëri xas na mbëri loolu dañ koy ñaawlu ñoom nañu wax li ñuy def ndax d'ailleurs am na victime bu fi mos a am ñoom te ñoom ñoo ko créé woon ñoom état bi parce que problème mooy ci nga affaire Ndiaga Diouf bi ñu ko fi jëlee ba ba mu am histoire ak euh, Barthélemy Dias biit gis nga victime yi euh, nervi yi jël ñu leen yéen yéen a ko jël ñi nga ñu ngi koy miim kon ñoom ñi jël di leen fay nañu wax ci loolu mais bàyyi mbër yi nga xam ne ñu ngi sàmm seen ngor toog ñu dem ne ñoo jógoon di manifester wu loolu ñaaw la. dañ doon dëggal li may la ma doon wax laay dëggaat rek ndax naar bu ndaw lu mu wax ci bu mag bi la ko déggee état bi bëggul làmb defalu làmb dara course ñu ngi seen douzième journée làmb ba léegi ñu ngi leen téye di leen promettre loo xamante ni duñ ko def raw rawatina nag ñu jël di leen salir leen taxal loo xamante ne nii defuñu ko loolu ñaaw na trop nag képp ku di mbër wala ngay axlu làmb ak njabootu mbër yëpp am nañ ci lu leen naqari ñi ngi déglu nag mbër yi euh, luñ ci jóg ñun ñu ngi seen ginnaaw euh, di leen jàppale bokk ak ñoom position bokk ñoom naqar. dañ koy ñaawlu kilifa nag booy wax da war a seet li ngay wax ak technologie bii nga xam ne dafa avancer loo wax dinañ ko xam et puis li ma jaaxal sax mooy complexe tubaab bi li ñu am lu ñuy wax rek bu ñu bitim réew rek fa la ñuy wax ay bêtises yoo xamante ni doo comprendre ñu ngi koy ñaawlu trop trop trop di ko naqarlu te it du dëgg dara du ci dëgg baax na jërëjëf. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi naqarlu bu baax mbër euh, kàddu yi nga xam ne la ministre de la justice moom la wax. dañ koy naqarul nag ba fu naqar yam ndax wax dëgg yàlla jàpp naa ni moom kilifa la te ñu ngi koy ñaan mu rectifier kàddu yi nga xam ne moom la wax respecté nañ ko lool ndax boo nee mbëri ñoom ñoo doon dañoo amul combat moo tax ñu toj kon ma yàpp ni ñun yéex nañoo toj yéex nañoo yàq parce que un an six mois mbëri ñu ngi toog bëriwuñu te kenn déggu leen tantôt te aussi tamit ni may ñaan ñu respecter le monde de la lutte le les parce que ñu ci bari ñu baal ma ils n'ont aucun respect pour les lutteurs tantôt ñu ne ñoom ñooy nekk ay nervis suba ñu ne ñoom ñooy ñoom ñooy euh, sànni xeer ñoom ñooy manifester ñoom ñooy def nangam naka sudul noonu te loolu moom du kàddoom parce que nag euh, làmb ñi ci nekk ñëpp ay nit ñu responsable lañ mbër yi xale bu li ci gën a tuuti fondé na famille fii la liggéeyee xaalisam fii la ko investir waaw te corps bu discipliné lañ waaw bu am noblesse lañ bu discipliné lañ parce que la Euh, c'est l'intelligence en mouvement ku yeewul mënoo ko waaw moo tax nag euh, lu ñu lu ñu metti la te dama jàpp ne décrypté wul message bi nga xam ne jeunesse sénégalaise moom lañ leen lancé jeunesse sénégalaise dañu lancé message état bi moom mooy xamal leen ni bëgg nañ dëkk ci état de droit waaye bëgg nañ tamit ñu changé ni ñuy dundee dundin bi ñuy dundee moom moo metti ñoom ndaxte tey boo xoolee bien vrai que am na Covid bi indi na ko ci parce que boo xoolee nit ki bu ñu restreindre say liberté boo génn doo boo boo boo génn dangay ngay exploser beneen bi aussi euh, chômage bi dafa metti xale yi am ñu liggéey ci banlieue bi bëgg nañ yëglu nañ. yëpp lii nga xam ne mooy mbiru usman Sonko dafa nekk loo xam ne rek moom moo ko moom moo ko moom moo ko sook moom moo ko ki waaye sooke li ko sooke dëgg dëgg dëgg mooy coono yi nga xam ne jeunesse bi dund nañ ko donc nag bu ci kenn laawaale mbëri mais jàpp naa ne le président de la république moom décortiquer na message bi comprendre na message parce que wax na leen ko nañ jéem a trouver ay solution mais di ñaan nag kàddu yi le ministre de la de la justice mu rectifier ko maa ngi koy ñaan <laughs> d' accord ban réaction ngay def ci loolu. waaye eh non comme ni ma wax rek gis nga lii ma ko expliqué nii waree ba ma déglu kii bi démb démb ci guddi am affaire yi ba ma fay teg rek man déglu naa ko quoi mais aéré la ma def aéré la ma def nga moom. Mm-hmm. yow Sénégal di yëngu yi sam laaf nii ñu am ci li nekk yow ñu ñu ñu introsé da ngay wax naan mbir yi ñëw <laughs> loolu en fait lu reer la quoi loolu moom lu reer la vraiment. d' accord reer la mais ñu ngi ciy tudd ay mbër quand même. non ñu ngi tudd ay mbër non non mais am na ñuy wax nervi yi mbër bu am licence am ñu tax ñu naan mbër. daa mhm. ngi koy wax suñu plateau dernier. isam mhm. la mhm. am sa licence ci bëri lu mu ndaw ndaw isam la ngay lekk sa nga ciy lekk sa ko am xam. te day fay ay dix dix mille nga war a jàkkaarloog sa askan isam la. xam nga di leen dóor wala noonu loolu. d'accord. d' accord léegi yéen en tant léegi yéen en tant que VIP yu làmb ji ban réaction ngeen na mu apporté ci sortie ministre boobu. léegi eh, parce que xam dara que xam nga comme bii Bourdieu mooy président directeur en xam nga mhm. jël benn décision xam nga ci ci ci kawam. xam naa loolu li ñuy waxtaan la rek mais man de vraiment wallahi loolu ay réew la ma def xam nga. am tey te li wax ak li am tey jërë nga trop vraiment man moom ay réew la ma def rek ñuy waxtaan dañuy ne li mu wax wax bu doy waar la parce que tey adduna bi yëpp ñoo koy ñoo koy reprendre xam nga tey demoon nañu bay wax ay terroriste président de la jindi na loolu ça veut que nit ki fekkee yàlla dafa def président de la bi la Sénégalais yi voté président de jox la si cëram def la ministre de la justice yow waroo indi coow. parce que tey ministre bi ku am coow tey moo la war a dimbali ku am problème ministre de la justice moo la war a dimbali tey warul sosal ay nit yoo xam ne vraiment ay euh, citoyens sénégalais lañu di gagner seen vie honnêtement et sérieusement parce que tey gisuñu depuis euh, Barthélémy Dias ba mu ba ñu amee problème mbër boobu ba ñuy wax mbër ba léegi gisoo benn mbër bu ànd ak homme politique jël jaas yi wala dem di xeexi pour homme politique mbër yi defatuñ ko. mbër bu si nekk yaa ngi bëre sa wërsëg ak li nga war a am nga def ko kon tey bu waxee loolu France euh, euh, TV5 reprendre ko yeneen si yëpp reprendre ko bu ëllëgee mbër war na mën a dem Europe ñu ne nit ñi duñ dugg si Europe parce que dañuy dañuy agressé wala c'est des bandits wala dañuy indi ay incident loolu moo parce que adduna bi yëpp ñooy xeex violence ñooy xeex violence politique di xeex violence euh, verbale di kon ñëpp ay xeex violence kon tey loolu. ministre de la justice vraiment war ko li mu war a def nag léegi mooy jéggulu Sénégalais yi parce que mbër yi dañoo am ay ay waajur am ay jabar am ay doom ñun les amateurs on supporte les mbër tey fu mbër taxaw tey amateurs yi ñu ngi seen gannaaw donc tey li mu war a def mooy mu jéggulu Sénégalais yi parce que loolu mooy yoon et puis njiitu réew bu waxee dara waratoo si teg baat nañ bàyyi et puis ñoom bi problème bi amee déggoo kenn ko wax. président wax rek ku nekk daw di wane ne man maay man maay man maa gën a jege président man maa nangam te bu affaire bi amee ñoom waxuñu parce que tey problème bu amee tey si jeunesse bi ñu am problème ak président ñoom ñoo ko def parce que ku si nekk président jox na la loo xam ne ni war nga mën a jàppale si jeunesse bi ñu liggéey wala nga jàppaleen si ay social wala si ay euh, euh, formation mais ñoom defuñu ko du ñu wuyu jeunesse bi duñu wuyu téléphone duñu tey ñi àndoon ak président Macky 2012. tey yow nga ànd ak kooku daan def réunion tey Macky jël la fal la nga bokk kooku koñ doo ko dimbali du tabax si nga may ko njëgu xar du korité doo ko dimbali doo na ko sa doom yi ndax ñu ngi liggéey xaaral ma dimbali leen ñooñu ñëpp tey ñoo taxaw di xeex di manifeste seen mécontent tey affaire Sonko bi dafa dépassé politique parce que tey citoyen yi bëri tey mere mer euh, moo tax ñu jénn mais làmb ji bokkuñu si ñun Macky Sall defal nañu arène nationale mérité wuñu tey taxaw dem di ko xeex voilà loolu ñun utuñu ko tey xeexuñu ko tey xeexuñu ko suba